ngeen jëf mbokk téléspectateur Equivox TV ñu am mbégte ak bànneex nag di jàkkaarloo ak yéen saa su nekk ci seen journal de l'arène nee naa la lépp loo xam ne rek duppee na ci lamb bi dinañ toog fii ci Equivox TV daal di leen ko faram-fàccal waaye tout temps rek maa ngi ciy ànd ak ki nga xam ne moo di Babacar Babacar nuyu naa la. maa lay fay soxna Ami. ci loo nekk Babacar yaa ngi mun ah, <laughs> di la xew yaa ko xewal tey li nga defa doy nga solo nii tey. Ah.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 mu mel ni ki yëglikaay bi di sunu làmb nag moom tey fa mu xëy ñëw ci xëtam mu njëkk kii di Boy Niang la càppaacul daal moom la xëy tay fësal ka samp laaj ba nag tey ci yëglikaay bi di laaj ci mbiri Boy Niang ak Tapha Tine moo di Abdoulaye Dembélé bu sunu làmb Dembélé nag moom la mu xëy di laaj ne na Tapha Tine fi nga xam ne fa la jaar ak nga xam ne nii moo di Elton maanaam daal massacré ko ci wàllum xeex ñu ne ne waay mu jàpp Bombardier wan ko loo xam ne nii mburu daju ko ci taal ci ab xeex moo tax tey nag Abdoulaye Dembélé xëy tey samp laaj di laaj ndax Boy Niang mi est-ce war na mën a jàkkaarloog Tapha a mën a génne loolu mooy laaj bi nga xam ne moom la Abdoulaye Dembélé xëy tey samp mu mel ni ki nag na koo xam ne tontu na ko moom nag xam-xamam daa jëm ci wàllum box ak xeex ak ay dóoranteeg mun su jabong ma ca Paris coach su jabong nag moom la mu gis moom jàpp na ne bu baax a baax booy Niang war na mën a xeex ak Tapha Tine bu baax a baax ndax li tax nee na kii dit Boy Niang yor na ay korosé yoo xam ne nii wala ay direct droite yoo xam ne nii daal loo ci mën a dégg daal yu dangereux la yoo xam ne ni daal képp ku mu ko dóor ku ne da nga yëg ne xeex na ak yow moo tax daal kot su jabang moom laaj booba tontu na ko bàyyiwul mu sedd jàpp na ne ñoom ñaar war nañoo mën a xeex wala booy ñam war na mën a xeex ak ka nga xam ne nii moom moo di tin ba tey du mu génn Pikine ndax dan fay des meneen mbër moo xam ne itam mu sonal waa Pikine la yëglikaay bi xëy na tey ñëw ci muy Papa Sow ak ndam yoo xam ne am na ko fa ci Boy Sey Bac Seras Tonnerre ak yeneen mbër yoo xam ne daal jàmmarloo Pikine waa moom mi nga xam ne nii moom moo di Papa Sow maanaam daal dugg yam fa dugg moom boo xool la ci ëpp lu baree baree bare ay ndami kese kese la fa jëlee yëglikaay baa xëy ñëw tey wax nu ko leneen loo xam ne nii moom soo bëggee dégg-dégg ñoom ñaar boole nañ leen ngir nag ku ci nekk jéem a wut ndam ci sa morom wala boog egsi koo am wala kenn ki gañe morom mi ñaar ci dara maanaam deux heures muy diggante Balla Gaye numéro deux mu Géejawaay ak Bombardier mu Mbuur yëglikaay bi nag xëy na tey wan ñu leen dina xamal ne Gaston Mbengue daal fi nekk nii tamit boobu combat moom pare na ngir organiser ko lu nu wooree ba woori maanaam après koor gi yëglikaay ba moo xëy caw ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu ba tey bu nu continuer ci sunu làmb ka nga xam ne moom moo di Antoine seen moom nag moom mooy président écurie Thiama sas Nianing ba nga xam ne nii Auguste Mbagnick Sène moo nekk tête de file ba moom nag xëy na tey seq waxtaan wu yaatu yëglekaay ba ñëw na ci carrière Auguste moom mi nga xam ne moo di Antoine daal la mu gis daal nee na Auguste carrière des koo freiné maanaam da nga koo taxawloo tey ndax mbër la woon moo xam ne day mu amoon avenir la ci làmb loolu Antoine moo xëy tey wax nu ko yemu ca ñëw na tamit ci li nga xam ne nii moo di Covid 19 bi ak ak difficulté yi nga xam ne indi na ko ci àddina bi ba tax mu freiné wala mu taxaw loolu bari loo xam ne ni daan na yëngu daan dox bokk na ci làmb ji moo tax nag mu ngay joxe ay solution de nee na li ñu war a def lenn la jéem a jàng nu nuy dunde ak mbir mi na ko njiital réew mi waxe woon bu ko defee ñu xool nan la ñuy def pour jël sunuy mesure ci wàllum sanitaire yi nga xam ne bu buñ ko defee danañu mën a xool nu ñuy def ba yenn mbir yi mën a dox ndax nag nee na bés moom mbir yi du sotti te ak moom ndox du am bokk na ci écrim ba nga xam ne ni nag jàpp na ne ba tey écrim ba moom mu ngay dox day former ay champion waaye xaleem ya jàpp na ne fi mu nekk nii ndax dëkk bi ni mu demee Covid bi ñu ci bari dem nañu wuti fi nga xam ne nii moom moo di ca Gambia def li nga xam ne nii moom moo di wàllum bëre moom daal Antoine tey xëy na seq waxtaan wu yaatu Ibou Bari ci yëglikaay ba nga xam ne nii moom moo di sunu lamb ba tey bu nu continuer ci yëglikaay boobu nga xam ne moo di sunu lamb Gambie googu nu tudd nag sànq daa mel ne am na mbër moo xam ne nii moom fa la dem toog fa di préparer boppam ñu koy wax réparer numéro 2 di rakki marle moom nag digganteem ak tekk jël daal dem ñoom ñoo war a bëre ka ko tëgg mooy Idaali Ñingi waaye ka xam ne moo di réparé nag moom mu nga ca réewum Gambia di préparé boppam ngir nag bu ba ngir mu mën a am ndam keneen koo xam ne ni moom Gambia yëngal na ko ba mu yëngutu mooy jamaïcain bu ñu demee ca tuusi yëglekaay bi di sunu lamb jamaïcain daal loo ci mën a dégg samedi jii nu génn moom ca benn stadion bu nekk ca Gambia moom organisé woon ñaari mbër yoo xam ne ay star lañ ca Gambie muy France ak Leket ñoom ñaar seenu face à face ak mbër ya ca war a bëre waaye daal yëglekaay bi jàpp na ne jamaïcain daal loo ci mën a dégg moom waa Gambia moom Jamaïcain saf na leen sap te it nag wan na leen boppam bu baax a baax a baax te combat ba le 28 mars nag lañ ko programmé ca la ñaari mbër yi nar a daje nag dal di bëre mu mel ni kon daal foofa moom mu ngay yëngu mu ngay yëngutu te Jamaïcain moo fa jaar feneen foo xam ne ni moom ku yebu xaar fa bu yëngutu muy Equivox ndax nag Bombardier waa Equivox seet nañu ak moom waxtaan muy lu bees teq loo xam ne nii daal wax na MMA ba ak tamit adversaire am ya nga xam ne ñoom la war a jàmmaar ko ci dugal ak lu mel ni ki noonu di bàyyi rek ca fa nga xam ne moo di Equivox TV ci kanam tuuti da ngeen seetaan Bombardier ñëw na ci lu yaatoo yaatoo yaatu mooy waxtaan woo xam ne Babacar mi di wax ak yéen moo ko seqoon ak moom àndoon ca Gomis ak ka nga xam ne moom mooy El Hadj directeur bi nga xam ne nii moom lañ dénk lépp lu jëm ci wàllum production fii nga xam ne mooy ci Equivox. na kii ah oui attention Jackson daanu titre ñu daal di dikk yéen nag ci journal suñu làmb Babacar ci xëtam bu njëkk mu daal di ñëw ñun rek ci combat Boy ña ak tafaatin Tine euh, laaj bi nag kii moo ko daal di samp mu ye kii di Ousmane Dembélé. non du Ousmane Abdoulaye. Abdoulaye Dembélé moom nag la muy la muy laajte rek mooy kii di euh, Boy Niang est-ce que war na rek daal di xeex ak ki nga xam ne moo di Tapha ndax seetlu nañu Tapha Tine moom kum daal di bëreel rek xeex ba day metti waaw loolu da xëy na su ko sampeb laaj dama naan xëy na ci côté technicité lay wax wala yu mel noonu waaye defe naa combat mbër bu toll ni Boy Niang nekk ci làmbi dóor boobu ba tey ñu wax la ne ba mu nekkee xale la commencé di ñu ko yóbbu ci salle de boxe yi muy jàng xeex tey mu nekk ci làmb di bëri di bëri ba làmb boole ko tafaatit mu lekk avance ndax war na xeex ak moom ah dama naan waaw war na xeex ak moom parce que làmbi dóor la ñuy def te Boy Niang tëlewul xeex waaw donte nag tafaatin comme ko bi indee am na mbër yoo xam ne ba ñu xeexee ak ñoom war na leen boppam muy Elton muy Bombardier yeneen mbër waaye nag waaw parce que xeexkat la moom bagarreur la wax dëgg yàlla loolu moom ñëpp gis nañ ko booy ña ngi tëmtaliwut xeex ndax am na mbër yu bëri ci xeex la leen éliminer doog leen a daan kon daal yaakaar naa ne moom comme lambi dóor la ah lépp nañ ko ci xaar. Ah, a wóor waaw voilà <laughs> gaaga la fa demee. voilà euh, laaj boobu ki nga xam ne rek moo di coach Jambong moom itam daal dina ci xam leen na rek kii di Boy Niang mën na xeex moom itam. Ah, na dëgg moom ko ci tàggat ay nit ñu yëngutu ci wàllum na fan yi digganteem ak Modou laaj bi tontu na ko parce que jàpp na ne Boy Niang war na mën a xeex ak Tapha Tine moom dafa ànd ci loolu effectivement loolu mu mooy mooy li ne donc pourquoi dañu war a mën a xeex parce que li tax mooy Boy Niang bëri dóor lay def si ak Tapha te dañ ko encadré ci côté boobu dafay daal Tapha Tine ak lu mu mën mën a xeex ah yaakaar naa ba bi suuflee du du nango croiser les bras booy Niang dóor ko de ndax Boy Niang tey fi mu tollu ci làmb hmm, ak poids bi muy posé ak ni muy entraîné ku mu dóor te dafa maanaam tegoo défense bu wóorul bu dalee boo sàgganee mën nga am lu la naqari naqari dëgg waaye takk ci répit kenn du moom bu muy def tamit dëgg waaw ah, waaw làmb nag moo tëddee noonu dëgg la Babacar bu ñu jógee foofu rek combat Balla Gaye lu mën a nekk kii nag di Gaston nee na pare na rek pour ko yàlla def mu réussir ko parce que combat la boo xam ne ñëpp koy xaar muy revanche ci diggante Balla ak Bombardier defe naa ne Gaston moom fi mu nekk nii comme ni ñuy wax rek yéene yi mu am daal pour tëgg ay journée ak yëpp promoteur yëpp ku yi nga am pour tëgg sa ay journée yal na leen yàlla dimbali ba ñu mën ko def loolu nag dina bokk si tey état bi ñëw soutenir leen jàppale leen ba nga xam ne nii lool mu bëgg après ramadan bi bu ñu woree incha allah yàlla nañ ko fekkee tal ko mu tëgg Bombardier ak Balla Gaye Amina Babacar ki nga mhm. xam ne nag moo di Papa Sow moom nag mu mel nii rek mbër ya nekk Pikine daal dina leen raafal de daf <laughs> ñoom ñëpp presque. <laughs> waaw <laughs> nga dafa xaw a garaaw nag gone gi. Papa Sow bu parcelle ah. Euh, borom jàmbar wrestling academy waaw mu mel ni moom itam vraiment daal duggam biir Pikine moom bëri na lu mu fa ba am ci ay ndam boo xoolee carrière am moom victoire yi. lu ci bëree bëri pikin la ko jëlee loolu nag li kay wane mooy ah jam maanaam euh, làmb say adversaire day am fu ñuy nekk mm. xam nga Pikine ak Fass dañuy yàgg am kujje ci ci seen biir moo tax combat boo gisaan ñu ne Papa Sow Boy Sey nekk lu metti Papa Baaj Seras Papa Sow ay bés la yoo xam ne ni Papa Sow Cheikh Ngiraan yooyu kenn du ko fàtte ndax li ko waral mooy euh, derby la mm-hmm. boobu Papa Sow mu ngi biir écurie Fass muy daje yu mettee métti yàlla dimbali ko na wax dëgg yàlla mu am ci combat yooyu yëpp presque ay ndam muy loo xam ne tamit liggéey la rek ak euh, encadrement mais du tamit naïveté waa Pikine wala nangam non non non noonu rek ci carrière Auguste Sène ki nga xam ne rek moo di Antoine Sène moom itam daal di ci ñëw xam leen ne daal carrière am bi dañ koo freiné. waaw Antoine Sène c'est le président de l'écurie Thiamassas de Nianing mhm. bi Auguste Mbagnick Sène nekk ah waaw moom loolu la gis dañ ko freiné waaw Auguste nag fañ ko doon xaar ci làmb yeggu fa moom wax dëgg yàlla xamuñu nag lu xew li ñu mën a jàpp ñun boog mooy ay blessure lañ gis góor boo xam ne bi mu parce que égus équipe nationale daf ko yëngal toj fa ñu ne déet ne waaye lit lit li lit avec frappe mu ci duggee commencé di wane boppam ba après ni ko Guinée de taxawloo combat bu la ko bëreel mu daan ko la suite nag ñu gis ci moom euh, la ci làmb moom euh, Auguste Mbagnick Sène te muy dëgg kii di réparé de di pareel combat rek ak tekk jël fële ca Gambie waaw ñaari xale yoo xam ne yoo am ñam <laughs> defe naa seen signature ba idaal yi taxawal combat ba keroog man maa leen présenté mais defe naa kenn doylu kon ci seenub jàkkaarloo ndax tekk ku ko xam-xam ko ki kàllaamaam macha allah muy xale bu am jom mën a bëre lool waaye mu seq réparé parrain di rakki mbër di rakki marle mën a bëre lool kon defe naa tey moom réparé bu soleil dàllam dem ba Gambie di préparé wu ji ça veut dire que loolu lay war ne xale yi tamit ah ñoom seen bopp li ñuy def ñor na leen trop trop trop ndax la ko jaral mu dem ba Gambia toog fa ngir di préparer boppam ça veut dire que kon teq euh, kon ki nga xam moom mooy réparer combat mag teqi jël daan dem ami lu ko ñor la te muy dëgg ba tey ci xale yu am jom yooyu rek Thiatou Rebeuss digganteem ak euh, Liss Ndiago waaw foofu tamit ko présenté boobu itam keroog bëggoon naa mu jeex hmm. boobu jéey seena fa jaar keroog maag Abdoulaat Ndiaye li ñu naan rapitum sàbbala ba ca lañ parce que dañoo woo ñaari xale yi pour ñoom ñaar kese ñu ñëw bundaare national ñu présenté leen hmm. xam nga rëbës ak rose ak seeni supporters ñëw ñu ne déet ne waay waaye jàmm gën xam nga leen dox ànd ak lis Ndiago Liss Ndiago tey booy xool ëpp ko mbooloo ci lam mbër ngi fayee ko ay millions pour Liss Ndiago mbooloo mbir mu nag mujj fees ba bëgg a déborder yaakaar naa kon moom itam caatu ba ah dafay normal mu dem moom itam préparé wu ji ngir waajal boppam waaw waa Equivox TV fu information nekk da seeti woon ki nga xam ne moo di Bombardier. waaw seeti woon naa Bombardier mais balaa muy dugg si Bombardier moomu damay ñëw si Jamaïcain defe naa ci biir toujours sunu làmb bi tamit gis gis naa ko fa léegi mu moom tamit ca Gambia. vraiment def na fa samedi passé lu am am solo di face à face mu dox ci diggante leket ak France muy combat boo xam ne la 28 mars la ko war a tëgg parce que Jamaïcain soo gisee des fois ay mbiram mënuma koo romb parce que dafa am lu ñu boole. nit ku ne day am la boole ak moom muy sama rakk di sama xarit ñu dem ba seq loo xam ne nii daal neexul sax ci wax ci ay micro kon lu mu dugg rek dooy ñaan yàlla mu di ko réussir à cent pour cent mu koy nuyu bu baax a baax di nuyu waa Gambie yépp fu képp kuy doomu Gambia rek maa ngi lay bégg di la jaar parce que dama fa ay soppe nuyu sama euh, xarit bi nga xam ne moom la nekkal Gambia actuellement muy Lamine ak ñoom Liiru Jaan ak ñoom Buli ñëpp ñu ngi foofu. mais waaw fan yi ñoom ñu ngi woon ca signature ba lañ demoon xam naa nag ñàkkul est-ce que dañuy xaarale faramaare parce que gars yi xam naa dañoo nam ma danse ah tout est possible de <laughs> samedi jotagul de <laughs> yàlla dañ fi yàlla bàyyi la samedi rek mais comme ni nga ko waxee ah, wax dëgg yàlla Bombardier ah, comme ni mu ko waxee rek diggante ma Equivox moom diggante am na ci macha allah mu signé waat yoo xam ne nii war a jongante ci MMA war ko signé seq ak benn polonais ci mois de mars bii nu nekk kon defe naa démb nag ñu seeti woon ko muy lu bees teq loo xam ne ni c'est exclusif kon nañu xaar rek waxtaan nañu ak moom ci MMA bi waxtaan nañ moom tamit ci làmbi réew mi ak adversaire am mais yooyu yépp daal nañ ko xaar ci Equivox TV du mën a ñàkk. sa àndoon démb ak Gomis. waaw. sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di ñaan Sénégal yàlla def fi jàmm yaa ngi dégg mais tamit tey di jaale suma benn maam fële ca ak yaay dafa génn àddina ñu koy wax mère Yacine Sène di suma maam di maamu ñoom muudu bopp ak ñoom mbay bopp ak ñoom pap bopp ñëpp maa ngi leen di jaal seen maam jooju ak tout la famille Seck suñu papa Serigne Seck ak ñun suñu papa Cheikh Seck parce que moo nekkoon seen wayjur ak suma bàjjen say Seck di leen jaal seen yaay di sunu maam mère Yacine yal na ko yàlla yërëm te xare ko aljana di ko jàll bépp doom ak yaay di ñaan Sénégal yal na fi yàlla def jàmm daal. Amin Babacar voilà nii lay demee saa su nekk rek Equivox TV ca kaw ca kanam mbokki téléspectateurs yi ñu doon seetaan ñu ngi leen di jaajëfal rek te leen jox dig daje rek ëllëgee incha allah. xamante nañu ah oui bon saf na kii ah oui attention Jackson d'accord